بقي الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نيو رجلتي آية سصند تي سورة صاد في سنبرم دواخيني وما لنا لا نرى رجالا kunna nauduhum min al ashrar ñu ngi yeesalaat sant suñu boroom subhanahu wa taala ci lim ñu wërsëgal ñu daje ci ab néegam ci biir shahru ramadan tiim ab téeréem alquraanul karim di ko jàng loole mbokk ay ngëneel la yu daj ci kaw ngëneel daje ca néegub yàlla bay jàng téere borom bi bu doon tene ne day doomi aadama yi xamoon nañ la ca nekk foog nañu ne jàkk bu nekk dañ soxla waa GMI ñu ñëw di wax ñay dugg ak ñu dul dugg lu raw nañ koy defe ca stade yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na amul ñuy daje ci néegab yàlla bi jàngab téeréem lu dul yàlla dana leen wërsëgal ak sakina boo ko sakina mooy ak dal nga xam ne ci xol la ko yàllay wàcce jullit bi am sakina nga méngale ko ak ko amul sakina suñ dajee ci feebar da gis xiiwal ga jullit gi am ci dal ko amul sakina du ko def bu ñu dajee ci ñàkk waa ji ñàkk ci am sakina ñàkk googi du ko perturber ñu dajale ci ay jaaxle deele tumuranke réerle ak lu mën a doon ki yàlla may sakina mooy ki yàlla may ak dal nga xamee ni dara du ko perturber yal na yàlla may ñu sakina gannaaw ba it borom bi mu ne wa ghashiyatuhum rahma suñu borom dana leen yiir ci yërmandeem te yàlla ku mu yërëm du la toppe say bàkkaar yàlla subhanahu wa taala ku mu yërëm du la teg loo xam ne nii day yàq sa dund àdduna ak alaxira ca it mujjeelu ak yërmandeem mooy ajjanaam ja yàlla ci yàlla tabbal yonent bi alayhi salaam it wax ne wa xafathumul malaika malaaka yi daañ ñëw wër leen ndax te jii ni mu amee ay journaliste fu xabaar am rek ñu daal di daw ngir teewe ko noonu la amee ay malaaka ne yoo xam ni ñoom sayaaxiina fi l ard ñi ngi nekk di dox ci kaw suuf yaltamisuuna xiliqa zikr di wër rek ana ñan ñooy daje di tudd yàlla loole nag mbokk julit kon ci ngëneel yi gën a màgg la ca mujj nag mu ne suñu boroom dana leen tudd ca malaaka yu kay ya ne fa moom naan leen xool leen sama jaam yi bàyyi seen yitte yépp daje sama néeg ba di jàng saab téere maa ngi leen di seedeel ne jéggal naa leen te dinaa leen tàbbal aljanna malaaka yi daañ ko wax ne ay suñu boroom diw mii day moom toog na fi waaye nag dars bi indiwu ko woon daa ñëw tombe ci rek mu toog mu ne boole leen ko ci ñooñu kuy nangoo toogook ñoom du texi loolu mbokk da ngay gis nangoo toog ak téere bi yàlla bi mu ne ñooñu kuy nangoo toog ñoom du texi kon yal yàlla subhanahu wa taala ah non maa ngi jéggulu de suñu borom dana ñooñu ku nangoo toog ak ñoom du texee di mi ngi noonu ñooñu kuy nangoo dem di toog ñoom du texee di ndax am na ñoo xam ne tey bu ñëwoon jub jataay yu mel nii ñu ne cam ibaadu ya nangam nangam ndax lañ leen gëmloo mooy alxuraan kenn du ko firi loole mbokk ay njuumte la yu rëy naka noonu nit xam ngeen ni ki dem toog ak ñu bon même bu dee loolu yóbbuwoo ko fa moog ñoom a yem am déet suñu borom mu ne comme isan mislahum heure bu ngeen gisee la seen yaxuuduna fi ayatina di jalgati aayay alxuraan yi di wax ay bidaaki xuraafaat di jiiñ yàlla keneen yow loolu itteelu la indiwu la fa waaye nga toog ak ñoom rek suñu borom mu ne ko na innakum izan mislahum yéen a yem kon naka noonu itamit euh, ñii nga xam ne ñooy toog nangoo jaamu yàlla yow it nga muñ bàyyi say soxla toog ak ñoom suñu borom subhanahu wa mu ne boole leen ko ci loolee danañu fàttali benn mbir bu xaw a reetaanlu Omar ñu Abdul Aziz dañ ko indil benn gaa yu ñu jàpp ñu toogoon seen taabal di naan sàngara biñ ñëwee euh, mu ne dañ leen war a dóor dañ leen war a duma am caamin bu ci bokkoon mu ne ko wallaay maa ngi lay waatal amirul muminin damaa woor wallaay noonu ma sàngara damaa woor mu ne jëkk leen koo duma moom mii <laughs> yaa ngi dégg ndax nan ngay wooree ba pare di toog ak ñu naan sàngara kon incha allah Cheikh Ousmane ji la ñu suñu bind bu jëkk waaw أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الكفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى بارك الله فيكم سن بروم سبحانه وتعالى موني وصور دي دان نك دي لا جنت سن بير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نلقن وقالوا ما لنا ñu ne moomoon ñun lan لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار na udduhum min al ashrar ñun dañ leen doon boole di leen wàññi ca ña nga xam ne ñooy ña gën a texee di ña gën a bon attaxasnahum sixriya amu ndax dañ leen a jàpp doon leen saboote rek am zaagat anhum al absar wala boog dafa jeng ci ñoom la nga xam ne suñuy bët waaye ñi ngeeg ñun ci biir sawara wi inna zalika la xaqun taxaasumu ahli nnar li de moy dëggug dag santek wa sawar qul innama ana munzir nel man day duma dara ludul dul tekat moy tolo nit ñi bëggulum yàlla wa ma min ilahin illa allah waaye amul kenn ke yo ñukoy koy jaamu ku dul yàlla wahidul qahhar moy kenn ki nga xamne mo not leneen ludul mom rabbu samawati wal ardi wa ma baynahuma mooy borom asamaan yi ak suuf ak li nekk ci diggante ba al azizul ghaffar mooy ka nga xam ni mooy ak not al qahar ci aziz la bokk al aziz mooy borom kattan gi al aziz mooy ki not ñëpp al aziz mooy ki kenn mënulul dara mi ngi noonu al ghaffar mooy ki sax di nangu tuubu ak jaamam fii mi tuub qul huwa nabaun azim neel lii day xabaar la bu màgg antum anhu muridun donte ne yéen dummoo yi ngeen ko maa kaana li min ilmin bil mala'il a'la ooma woon day benn xam-xam ca notaabal ya gën a kawe muy malaaka ya is yaxtasimuun jamono bi ñuy dagg sante in yuha ilayya man waxyu wu ñu jëme ci man ay xamalu ñu jëme ci man illa annama ana nazirun mubin ne day man duma leen lu dul xuppaatekat bu biir bu leer rekk cay woote ci lu leer mi ngi noonu mbokk dañu nekkee ci suratu soofaat suñu borom mi ngi ñuy nettali benn jataay ci jataayu waa aljanna ñoo xam ne ñu ngi toog di fàttaliku bi ñu nekkee aljanna bi ñu daan dem fii dem faa dem fi ba mujj kenn waaw man dey amoon naa benn àndandoo daf ma doon wax ndax yow bokkoon nga ci ñi gëm ni allaaxira am nam amul waaw ndax duñ ko xool waay buñ demee ca fa yàlla maye ñuy gis waa sawara mu séen ko ne ko yow dey xawoon nga ma alak loolu ca saafaat la woon amma fii contraire bi la suñu boroom ci biir sawara la dem dañuy nettali waxtaanu waa sawara li ñuy jëkk a wax mooy li xel doomu aadama nangu da nga naan mais non sawara ni ñu koy nettalee ak mbugal ya fa nekk ku fa nekk dooy tale waxtaan waaye mbokk suñu borom nee na kenn du mbugal ni yàlla di mbugale soo ñëwee ci kaw suuf doomu aadama ni ko yàlla bindee résistance am ci mbugal daa am fu mu yem imma ay dóor la wala dañ koo naq ci ndox la wala dañ koo taal bu yàggee rek day dugg daan le coma dootul xam fu mu nekk dootul yëg dara amma Euh, bu dee àllaaxira loolu du am d'ailleurs boo xoolee ci ña nga xam ne dañuy miin di topp la nga xam ne mooy service secret am na ci ay médecins yoo xam ne seen formation xam nga mooy lan mën a téye doomu aadama di ko mbugal pendant une heure de temps ci lu teqale ko xelam ngir enquêtes yi ñuy def ci moom mbugal yu tar gën jaa tar ci yoo xam ne nii xëy na beneen mbir la waaye la kulli xaal suñu borom moom waa sawara borom bi nee na mbugal mi ngi leen di jóge fu nekk buñ leen yóbboo ci taal yi ñoo taal leen ba ñu ñor jar yi toujours ñu ngi koy changé par minute minute jëli leen foofu yóbbu leen ci chaudière ya ca ndox mu tàng ma dogal leen ci ammoniac ba muy muy yax muum ba bol day ñëw yeneen ñëw yeneen ñëw dee mi ngi leen di jóge fu nekk mais ñu dee waaye loolu lépp du ñuy teqalikoo ak seen xel ndax mu xel bi demoon rek mbugal mi dem gis ngeen duñ texli ko seen xel su ko defee ñu ne waaw ñun dey am na ñu ñu nekkee loon ñuy woote ne yàlla kenn la weddi woon suñu xërëmi maam yi ñu jàpp ne ñoo gën a bon ci ñuy dox ci kaw suuf waa ñooñu ana ñu tey ndax ñun dañ leen a gisul ñu ngi ñun ci biir sawara wala boog ñun ñoo defoon erreur di leen reetaan te ñu leen reetaan waaye lañ jëkk a wax mooy dëgg mooy dañ leen doon reetaan ci erreur mi ngi noonu inna lazina ajramu kaanu min allazina amanu yadhakoon ca adduna day saay-saay si daaw ñu deñ di reetaan nit ñu baax ñi buñ leen gisee ñu ne inna haulaai la dalluun ñu ne ñi gën a sànku muy ñii amaa nag contraire ba suñu borom mu ne waa ajjana ña nga seen ajjana ya minal kuffaari yadhakoon di reetaan ña nga xam ne ñu yéeféer yi borom bi mu ne kon lii mooy dàgg sante bi waa sa wara di dagg seen te seen biir ñu boole ñaari naqar te mooy naqaroo dugg nañu sawara ñañ jàppoon na ñoo gën a bon tey ña nga nee ca kaw àjjana di leen woo di leen sabote di leen reetaan comme nañ ko doon defa ca àdduna yow yeneen ci yàlla mi neel man duma dara lu dul xuppaate kat yàlla bi ñuy jaam benn yàlla kese la loolu ñu dégg ci ñaari mbir benn mbir pour ñuy weddi yeneen ci yàlla bi lañ ko doon wax mooy yow nee nga yàlla la yónni da ngaa war a am ay jardin kaza wa kaza yéeg asamaan di wàcc danga war a def li indi xar baax tàngam indi xar baax nangam mu ne leen xëy man du ma dara lu dul munzir yàlla daal yónni na ma ma xamal leen loo xam ne su ngeen ko bàyyiwul sawara ngeen jëm su ngeen ma toppee àjjana ngeen jëm lii mooy sama warugar waaye nga la waay yu jullit xamal na yeneen bi du dara lu dul munzir dañ koo waate naziran wa bashiran wa nazira ñëwul nekk yàlla yàlla moom kenn rek la boo gisee nag li yàq diine lu bari ci doomu aadama yi mooy dañoo mënul teqale aq yi mbokk suñu borom yàlla daa am aq yoo xam ne bokk ko kenn lépp lu aju ci jaamu yaakaar toroxlul woo sukkandiku kooku yàlla rek a ko yeyoo yonent yàlla bi am aq bu mu bokkul ak kenn mooy lépp lu aju ci jàngale diine yonent yàlla nga ko war a jàngale keneen ku mën a doon ab sëriñ nga koy tuddeem ab ustaas nga koy tuddeem ku mën a doon xam nga luy àqama mooy mu jottali la li yàlla subhanahu wa taala bëgg yéen ñaar ngeen ànd jaamu yàlla amul droit di la tëralal loi jaamu yàlla bu bokkul bu mu la bu mu la indilul layu leer ci ne lii kat da koo jottali rek yonent bi moo ko indi mi ngi noonu amul droit di la teggil benn jaamu yàlla bu yonent boobu indi ban la man mooy jàngal la yéen ñaar ngeen ànd jaamu ji yàlla loolu mooy mbir bi yàlla moom kenn la alwaahid alqahaar moo not ku fi ku fi mës a jaar am nañu fi mës a jaar wootoo ak yàlla ka daje woon ak ibrahim di namruuz nee na may yàlla na waxoon na may yàlla ñeneen waxoon nañ ñaay yàlla waaye ñoom ñëpp yàlla rey na leen des fi moom nekk di yàlla gis ngeen kon mooy alqahaar borom boobu nag ne moom moom moom asamaan yi asamaan juróom-ñaar moo moom suuf moo moom lépp lu ci nekk lu nekk ci diggante bi loolu muy wone ni keneen ku dul yàlla jaam nga yàlla amu fi nawle amu fi ku mu bokkaaleel ñépp ay jaam lañu looloo tax grade bi gën a kawe bàkk gi gën a màgg gu ñuy bàkk suñu yonente sallallahu alayhi wasallam ca bàkk nañ ko ko léegi léegi léegi bi ñuy bi ñuy taaya la ëpp ci ñun bàkk nañ ko ko biñ jàppee ba pare te mooy ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu ay muhammad jaam la abduhu wa rasul mooy jaam la ndax lahu ma ma fi samat ma fi laan suñ borom boobu mu ne muy al aziz mooy ki not lépp waaw yàlla lu tax say jaam yenn nii mooy la mbokk suñu borom dafa am ñaari bëggeel dañuy tudde iradatu kawniya mooy bëggeel boo xam ne da ko tëral ci loi bi mu indi ci àdduna loi boobu kenn génnu ci président général milliardaire rek baadoo la suñu boroom moo la juddul tànn la nga def góor wala jigéen amoo ci benn choix waaw dangay gis saay saay si ban si dañuy xëy ku nekk góor dem ba toll ne bàyyam ne déedéet damay nekk jigéen waaye déedéet lay sa zakkaru kal unsa <laughs> mun a fexe ba def sa bopp jigéen am na jigéen ñu bëgg a def seen bopp góor la yàllaa li def góor yàlla moo la tànn def la ngay nit ku ñuul wala moo tànn def la ngay tubaab yàlla la tànn ngay ku njool di mesure deux mètres yàlla bu ko neexee mu def la ngay mesure un mètre yàlla la tànn nga doon koo xam ne nii da gudd fan da ngay gàtt fan feebar bi wér gi ñàkk loolu moom kaw kawniya la kenn mënu ci dara al aziz moo ko dogal jeex na mu am na lu ñuy tuddee iradatu charia mooy suñu borom moo tëral ay loam ni ay yonentam woo nit ak jinne ne leen yéen may na leen carte blanche ñu ngi noonu bu leen neexee jaamu ma bu leen neexee bu leen wa jaamu i'malu ma shi'tum waaye nag li li li wér ci wér ko topp may ndigal àddina lay xaar lank lànk may ndigal sawar moo lay xaar léegi nag i'malu ma shi'tum dafa leen lan neex kon muy al aziz bu ko neexoon kenn du ko moy waaw léegi nag jàmm bi nga xam ne moom gëm na loolu waaye tarxis na mooy yàlla moo gaa yi kooku luy pexe borom bi teg ci ne mooy alxafaar tuubal yàlla baal la boo ko def fàttee tuubal yàlla baal waaye mbokk tuub googee suñu borom mu ne wa inni la xafaarun liman taaba wa amana wa amila salihan summa htada yàlla mooy alxafaar waaye nee na sama jéggal maa ngi koy yégleel maa ngi koy jagleel ki nga xam ne bi mu defee bàkkaar daa tuub bàkkaar bi gëm yàlla dellu yàlla ne ah yàlla day lii yaa ko tëraloon jalgati naa ko nangu naa ne tooñ naa muy amana wëlbatiku nag def lu baax bàyyi bakar ba sax ci loolee suñu borom mu ne kii bakar ba nu mu mën a mel dinaa ko ko baal gis ngeen nu mu mën a mel dinaa ko baal seytaane nag mën na caa profité ne laa dégg nga day li wax nee nañ boo tuubee yàlla bal la waaye mokk tuub yàlla koy jagleel ku ko neex ci ay jaamam damay dem jaalo ji suma paree tuub déedéet yàlla mooy jagleel tuub ñaareel ba kan moo la xamal ne yàlla dana la baal kan moo la xamal balaa bàkkaar bee jeex doo dee avant ngay tuub looloo tax jullit day daw bàkkaar kemtalal kattanam mënoo mucc nag léeg nga tarxiis heure boo tarxiisee nag nga dellu xam ne yàlla mooy alxafaar lii de defal nga ko daaw defal nga ko un mois passé waaye alxafaar tuubal rek alxafaar moom dana la nangul fii yaa ngi sincère borom bi subhanahu wa nag ni lii yonent bi di wax xabaar la bu mag te mooy xabaar bi gën a mat ci xabaar yi mooy xabaar bi gën a wér ci xabaar yi yal na yàlla dolli njéggal suñu mbokk ba El Hadji Fadiouth Gueye daana wax mooy la dernière nouvelle l'ultime dernière nouvelle mbokk ay xabaar day ñëw ñu ne masalan diw day dee na kilifa gu mag ah ci sa bëgg ñu ne eh erreur la woon de amul lan la ñuy gëm mooy xabaar bu mujj bi la ñuy gëm kon nag suñu borom doon na wàcc ay xabaar jële ko asamaan xabaar bi mu mujjoon ci xabaar duutu ñëw gannaawam di fol lépp mooy alquran nabaul azim borom bi nag nee na yéen a ngi ko dëmmooyu woon ko gannaaw ca mbokk mi ngi noonu la ëpp yéeféri moom taxul ñuy wax alquran di wàcc yéeféer rek démb ak tey yam ñoom ñëpp wan nañ gannaaw alquran mais lii malheur mooy la ëpp ci julli ñu tey wan nañ gannaaw alquran lu néew ñoo ko ciy jàng ña ko cay ñu néew ñoo ko ca comprendre ña ko ca comprendre ñu néew ñoo ko jëfe antum anhu muridun am na yeneen yoo xam ne nii moom lañ jublu jëm ca jàpp ne jàng yooyu moo ëpp valeur jàng alquranul karim bala nga koo xam doxantul léeg-léeg diggante kolobaan ak Sandaga nga xool par suba doomu aadama yi yan téere la ñuy jël di ko jàng antum anhu muridun borom bi nag subhanahu wa ne yow yeneen bi alayhi salaam nee leen man day oomo woon xabaar ca mala muy notable yi kaw yi ba ñuy dàgg lu ma nettali rek sama borom moo ko wax yu jëme ci man duma lu dul waalaatekat bu bu biir loolee la nga xamee ne nii moo ca jiitu woon mooy bokk na ca suñu borom yàlla subhanahu lii nga xam ne nii moom la ñu nar a jàng léegi muy ci ak Cheikh Ousmane allahuma it am na lu yonente bi alayhi salaam wax nee na suñu borom mës na ko feeñ ca melokaan ba ko neex ne ko waaw Muhammad ndax xam nga notable yi ci lu ñuy dàggasante muy malaaka lu ñuy xëccoo mu ne ko ah loolu de yàlla moo yaa yaay ki xam mu ne ma ñu ngi xëccoo fil kafarat wal daraj wa darajat ñi ngi xëccoo ci kuy jëkk bind daraja yi jullit ci seen jaamu yàlla kuy jëkk a far seeni bakkaar loolu la malaaka yi di jëkkante kuy jëkk a bind ak kuy jëkk a far ngir bëgg giñ bëgg jullit ñi bëgg yàlla jéggal leen bëgg yàlla yërëm leen mu ne ko nag euh, kafaaraat yooyu ak darajaat yooyu mooy matal njàpp ci jamonoy sedd nga jog ndox mu sedd lool teewul nga suuru ko jàpp jàpp bu ma sëg baril ay jéego dem ca jàkka ja ak toog ca jàkka ji di xaaru julli gannaaw ba nga jullee ba pare yonent bi alei salaam mu ne fa zalikum ribaat fa zalikum ribaat ñooñee nga xam ne ñooy matal njàpp dox ay jéego jëm jàkka ja toog ca jàkka ja di xaar julli malaaka yi dañuy jëkkante ku jëkk far bakkaar yi ku jëkk yëkkati seeni daraja yal na yàlla fayal ñu leen ca boola ñu ci ca ñi ngi taxaw mi ngi noonu cheikh ousmane إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ساجدين فسجد أخذت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منه فاصبرها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين بارك الله فيكم <coughs> سني بروم جل وعلا مني إذ قال ربك للملائكة بس بروم يلا دي وخ نيل ملائكة إني خالق إني خالق بشرا من تين من داي ماغي بند نيت بند كو تي بان فاذا سويته ونفخت فيه من روحي سما دمي با يملكو با افتي سما روح فقعوا له ساجدين يل نيب رتلن سجودلكو فسجد الملائكه كلهم اجمعون noonu la sujuute malaaka ya mboole seen ñoom ñëpp mboole seen illa iblis astakbara wa kaana min alkafirin amma iblis moom rëy rëylu na bokk ca ña nga xam ne dañooy weddi qaala yaa iblis ma manaaka an tasjuda lima xalaqtu bi yadayya moo iblis lan moo la ñeel ba nanguwoo sujuutal li nga xam ne man maa ko bind ci samay loxo astakbarta am anta min alalin ah am kunta naam astakbarta da ngaa réerilu am kunta wala boog da bokk min al aliin te ñi nga xam ne dañoo kawe ba waruñoo sujud qaala ana xayrun minhu mu ne yàlla kii maa ko gën xalaqtani min naar yaa ngi binde ci sawara wa xalaqtahu min tiin te moom yaa ngi ko binde ci ban qaala faxruj minha fa innaka rajim mu ne ko génnal fii yow day doon nga ku ñu dàq rajim mooy ku ñu dàq ci xeer di ko dóor loolu la def ku njaaloo te mës a sëy wa inna alayka laanati ila yawmi din ca dana nekk ci sa kaw sama rëbb ba baa bi si penc di taxaw mi ngi noonu mbokk suñu borom yàlla euh, toog na ba mu soob ko mu ne malaaka yi sama planète bii di suuf dama fay yóbbu benn ku ma fay taxawal samay loi malaaka yi gis nañu ne doon nañu contesté ci kanamu borom bi ndax yàlla xamoon na leen tabi a doomu aadama kan mooy doomu aadama danañ fa nekk danañuy def ay bakkaar dañ fa nekk di tuur deret ñu ne ko mais yàlla lu tax ngay def loolu te ñun ñi ngi sax di la sabbal ñu ngi sax di la bàkk ila axiri suñu borom mu ne damaa xam lu ngeen xamul xam naa lu ngeen xamul te mooy défaut yi nekk ci ñoom téyewul danaa leen jagleel xam-xam ak i jaamu yàlla ak i darajaat yoo xam ne nii ñoo raw leen li ngeen di wax looloo tax li ëpp ci boroom xam-xam yi dañ ne ar rusul ñoom ñoo gën malaaka yi bu dee malaaka seen mbooloo ñoo gën ñeneen ñu dul ñoom waaye am na ci jaami yàlla yoo xam ne dem nañ ba gën malaaka ngi mel ne doomu aadama ñu nekk ci kaw suuf ñoo gën ñeneen ñu dul ñoom waaye am na doomu aadama yoo xam ne dem nañ ba mbott ya golo yi ñoo leen gën summa raddadnaahu asfala safilin loolee kon mu ngi noonu amma loolu di étape bu jàll suñu boroom kon bind na aadama bi mu bindee aadama alayhi salaam daa di koy taxawal ëf moom ak ruuxam xamal ko benn xam-xam ci ay tur yu mu ko laaj gannaaw bi mu ne hey malaaka léegi lii ak lii lan lay firi malaaka yëpp ànd na ah yàlla laa ilma lana illa ma allamtana xamuñu lu dul loo ñu xamal ñun lii xamuñu ci dara mu ne aadama alayhi salaam waxal ma yii lu muy firi aadama taxaw ci kanamu malaaka yi expliquer leen lépp loole kon ñu gis ni suñu boroom ci xam-xam yëkkati na ci aadama ci kaw malaaka yi te it nga la waay yow ndawal julit xamal ni góor góorlul meubale sa xol bii ci xam-xam gis nga yaram bii ay sport bi dang-dang ba dul jeex amul benn njëriñ nangeen di nangoo jàng jàng lu mu mën a doon nag la ca jiitu mooy jàng seen diini waaye jàng àdduna ba xam ko mbokku Afrique ba ñuy doog ko jël indépendance u fit boo ñu yéefir ba ba muy jëkk a wax ak moroom yi président africain nañ leen hey l'Afrique a assez dansé fecc mi nag doy na léegi nañ jéem a jàng jéem a xam ngiree dab dab tubaab yi loolee loolu jeunesse bi loolu ngeen war a def seen bopp luy lu lu lu lu mën a doon rek lu dul xam-xam rek xam-xam moo ko gën kon jàng leen ngeen xam aadama jàngal malaaka yi maadaama loolu am na rek malaaka yépp yëg na ah kii kat du suñu moroom kii du ci suñu moroom ndax raw nañu ci xam-xam suñu morom nag ne malaaka yi su juutal leen ko malaaka yépp jóg amul kenn mboole seen waxumaa sax ñi dañoo sujud après ñu sujud déedéet ñoom ñépp a àndandoo sujuutal aadama alayhi salaam mi ngi noonu benn waaye ma sama wax ne waaw yéen taxu yéen bu ngeen bu ngeen di sujuutal ngeen bañ ma ne ko ca aadama alayhi salaam malaaka yu tedd yi sujuutal ko ma ne ko malaaka yi dañoo sujud ci ndigal ñu ni dañoo bañ ci ndigal malaaka yi dañoo sujud ci ndigal te mooy suñu borom moo leen waxoon sujuutal leen aadama bu dul woon ak ndigalu yàlla dañuy bokk minal mushrikin am déet ñu ne tey ñun ñëpp yàlla ngi jox ordre bu ñu demee ñu sujur jublu ci kaaba gi am déet tey jii képp koo xam ne nii dafa jógoon di julli jublu sow lu ñuy wax kii dafa sànku mais tey ñun ñu ngi jublu ci kaaba gi gis nga ni ñu toogee nii soo demoon waa Asie contraire bi lañ toogee ñëpp kaaba gi lu war a loolu yàllaa ñu jox ordre ci loolu du question na kaaba gi la ñuy jaamu waaye ndigalu yàlla la bu ñuy doxal ñu ngi mel ne tey Ibrahima alayhi salatu keroog ba mu tiimee Ismaïl lan la islam Ismaïl def suñu borom nee ne ki rey benn bakkan ca bakkan bi tooñul yaa ki rey àdduna yépp a yem lu tax Ibrahima nangoo jël benn bakkan di ko rey waxuma benn bakkan waaye doom ju mu jur tiim ko nar koo rendi lu waral loolu muy ndigalu yàlla la kon ndigal yàlla bu ñëwee dañuy xam ndigalu yàlla ñëw na loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax yonent bi alayhi salaam na ñun jullit duñu dël ku dul yàlla loolu ñu bàyyi ci xel borom boobu kon mu ne malaaka yëpp sujjut nañu iblis yàlla mayoon na ko ay daraja da xam ngeen malaaka ak iblis dañoo xaw a nuroo ñii ñi ngi leen bind ci leer muy malaaka yi ñii ñu bind leen ci safara donc ma jinn mën na naaw di dem kaw asamaan comme ni ko malaaka yi defee noo nit la cheytaane di iblis doon def ànd ak malaaka yi léegi suñu borom yàlla nag indi benn ngëneel bu mu gëneel ci nit ko nit koo xam ne tey lu ko bind iblis mi ngi foon di jaamu yàlla mu am euh, lekk ci moom ci wàllu iñaan te mooy bàkkaar yi gën a garaaw yi alak doomu aadama muy pour pourquoi yàlla waxul malaaka yi sujjuutal ma wax kii mu bind barki dem ñu sujjuutal ko bi malaaka yi sujjuut mu taxaw fa mu taxaw suñu borom na ko ah waaw iblis lan moo tey nga sujjuut da réeréelu am da ngaa jàpp yow kawe nga ci war a topp bañ a def samay ndigal mu ne ko yàlla kii nga wax mu sujuutal ma yàlla da ngaa juum moom moo ma war a sujuutal ndax man maa ko gën yàlla bi nga may bind ci safara nga may binde ca moom yaa ngi koy binde ci ban loole mbokk dangay ngay gis ne ngi ci bàkkaar yi gën a garaaw ci du doomu aadama def du nas mi ngi noonu bi qiyaasin fasid nga suñu boroom yàlla indi tegtal bu leer yow ngay indi sa xalaatu bopp doonte ne xalaat bu safaanoog bu yàlla neen rek la mën a doon mbokk ku ne xam ne ne ne ban mu ëpp njariñ safara safara li man mooy ay lakk ak xëy na togg waaye ban mooy génne garab yi mooy génne gàncax yi mooy génne njariñ bu kenn xamul muy muy tontu it ñu bari ñu jàpp ne ibliis daa bokkoon ca malaaka ya déedéet iblis du malaaka malaaka leer lañ leen bindee iblis safara lañ ko bind moo tax mu ne ko xalaqtani min naar soo demee ci suratul kaf yi day gën a leer illa iblis kaani min al jinn jinne la du malaaka loolu bi mu amee suñu borom yàlla ne ko kon place bii ma la mayoon nga am privilège di yéeg bay ànd ak malaaka di jaamu di sabbal fahbit minha ci beneen aaya faxruj fii mi ngi noonu fa innaka rajim xamal na yow dàq nañ la ca la nga xam ne nii moom mooy yërmande ca danga ànd ak sam rëbb ba baa bis penc di taxaw da nga ànd ak sam rëbb ca baa bis penc di taxaw te loolu muy wane ne yàlla xam ne ni iblis du tuub ndax erreur bi mu def rek loolu suñu bàyyi aadama def yàlla da koo digal mu bañ aadama it yàlla da koo tere mu def mais aadama moom daa tuub dellu gannaaw amma iblis moom daa daa féttalu suñu borom na ko rëbb naa la ba ila yawmi diin loolu it mbokk jullit moytul lépp loo dégg rëbbum yàlla ma nga ca moytu ko yonent bi alayhi salaam nee na yàlla rëbb na koy lekk riba yàlla rëbb na ko koy jox riba ba yàlla rëbb ne kay bind yàlla rëbb ne kay sédé yàlla rëbb ne jigen ñi yok seen karaw yàlla rëbb ne jigen ñi xar seen bëñ yi yàlla rëbb ne jigen ñi nga xamné ñi nga xamne ni dañuy nekk di jam seen seen yaram yi ay tatouage yàlla rëbb ne lu bari ci ay aya ci ay hadith rasul sallallahu alayhi wasallam neena yàlla rëbb ne len ku yàlla rëbb suñu borom mu ne wa yal anillaha lahu falan tajida lahu nasira ku yàlla rëbb amul kenn ko man a xettali yàlla yàlla musulan ci am rëbbam mi ngi non cheikh ousmane قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغفر الحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلم إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين بارك الله فيكم سنبرم جل وعلا مني قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون من أي الله سما بروم خارم رك ba ba bis bi ñuy bi ñu leen di dekkal qaala fa innaka min al munzarin mu ne ko day bokk nga ci ñi ñuy xaari waaye nag ila yawmi al waqti al maalum ba bisu waxtu wu ñu xam qaala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain mu ne ko maa ngi waat ci sa teddaange ni ñii dinaa leen sànq mboole seen illa ibadaka minhum al muxlasin lu dul sa yi bokk ci ñoom yi nga xam ne nii dañoo nekk ay tànneef yoo tànn qaala fa alxaq walxaq aqul suñ borom ne ko liy dëgg ci dëgg rek lay wax la am la anna jahannama minka wa min man tabi'aka minhum ajmain danaa feesal jahannama ci yow ak ña nga xam ne ñoo la topp ci ñoom boole seen qul ma asalukum alayhi min ajr neen laajuma leen ci waaraate gi benn fay wa ma ana min al mutakallifin te it nekk ma kuy gàddu benn responsabilité ci diine yàlla ci in huwa illa zikrun lil alamin lii du dara lu ak ak fàttali ñel mbindaafan yi wala taalamunna naba'ahu ba'da xiin xel sa ngeen a xam xabaar ba koy firi gannaaw jamono ju niw mi ngi noonu mbokk gis nañu seytaane euh, suñu borom yàlla rëbb ko gis lan la wax suñu boroom daf na yàlla may ma ma dund ba baa bis bi ngay dekkal jaam yi booba mi ngi jéem naxante ngir mucc ci de suñu boroom yàlla na ko danaa la may nga dund danaa la xaare ba ci bis boo xam ne bis bu ñu xam la boroom xam-xam yi ni mooy ñiy mujj de ci kaw suuf ci boo xamee ne nii ëf nañu ca la nga xam ne mooy as suur ca la seytaane doog a dee léegi nag dele boobu mu ñaan yal na yàlla musul ñu ci moom yonent bi alayhi salaam dane bu leen nekk di ko rëbb de leen wax rek yàlla musal leen ci moom ndax yàlla rëbb na ko ba pare ca boo ko rëbbee day rëy rëy lu moom ci boppam kon waxal yàlla musal la ci moom mu ne yàlla maa ngi waat ci sa teddaange mi ngi noonu maa ngi waat ci sa teddaange mi ngi noonu di diminuer ko sa teddaange ne ñoom danaa leen sànq mboole seen donte ne mbokk jullit ñu góor góorlu xam ne seytaane la mi bon bon bon ba muy waat ma nga waat ca turu yàlla jëll wa ala donte ne sànq na doomu aadama yi ba ñuy waat ci leneen lu dul yàlla mu ne naa leen sànq mboole seen kam njëkk a sànq mooy suñu bay aadama wa asa aadamu rabbahu fa gawa summa tabaahu rabbuhu fa taaba alayhi wa hada kim njëkk a sànq mooy suñu bay aadama aadama ajjanaa ngi nii fu la neex demal lu la neex lekkal gis nga garab gële mu ne waaw bu ko jege bu ko jege yàlla waxu ko bu ca lekk yàlla waxu ko bu ko laal te ne ko bu ko jege seytaane ñëw di man ma ne aadama di ko waatal di ko laay ne da koy laayi biir di ko man ma ne ba yóbbu aadama ca garab ga aadama yàlla waxoon na bu ko jege jege na ko waxuma laal waaye dagg na lekk mook soxnaam gis ngeen loolee yóbbu leen ci cànkote suñu borom sànni seeni yére waaye fa lillahi alhamdu suñu bàyyi aadama mook soxnaam dañoo tuub dellu ci yàlla yàlla subhanahu wa taala daal di leen di nangul loolu it mbokk kum mën a doon ci jaami yàlla yi ngan la waay yàlla nattoo na la nga tarxiis dellu siwaatal yow naan ko to sàngare bi xatta ki ma gën a bañ ci kaw suuf yow góor jigéen bi dellu sil dellu sil ba dellu si yàlla baal la te fa lillahi alhamd yàlla nañu yàlla nangul nangul leen yàlla masuma dajaleeg dajaleeg le xalif général des góor jigéen du Sénégal <laughs> yaa ngi dégg fële ci eh, camp pénal ma ne ko sëñ bi tuubal dellu ci yàlla boo ko gisee moom jigéen jigéen ngay ngay jàkkaarloo yaa ngi dégg ma ne ko tuubal dellu ci yàlla gis nga yàlla mi lay may sa oxygène bi nga koy noyyi mu lay may ngay dox mu ne waaw mu ne bunti tuubam mi ngi ubbeeku ci yow ba tey boo tuuboon tey yàlla baal la tuubal yàlla baal la ci it mën na génn ci ñeneen ñoo xam ne nii yéen ko bokk ah man kay danaa tuub man kay danaa tuub ba fii may wax a déggu ma ak tuubam nag mu ngi noonu waaye ngal la képp koo xame ne yaa ngi ci mbon bul jàpp ne tu es condamné bul jàpp ne tu es condamné donte ne yal nañu yàlla musal ci bidaa suñu dëkk ak benn góor goo xam ne dafa demoon France bu mu demee France

dañ doon jàpp suñu gaay yi di leen yóbbu man maa ñëw engagé sama bopp ngir dégg comme France dañoo am kóllëre ñu ngi leen di toroxal man ne du ma fekk toroxtaangeeg France damay dem jàppale France ma bañ ñu toroxal waa France mu ñëw fii mu may toroxal loolu nag duma ko nangu procureur baak ñëpp jog tàcc ko tàcc ko <laughs> ñu jox ko commandant d'honneur affaire de France yooyu lu ko neex la daan def lu ko neex la daan def léegi nag yàlla dogal nee na am na benn xabru ci xabru sëriñ si nit ñi yaakaar mu ne ah xabru diw dañ ni boo demee boo ko laalee suuf sa bu la dara taxul ça veut dire que kon safara nga jëm man nag dem naa laal naa dara toq ma comme xam naa safara laa jëm lu ma neex def <laughs> yaa ngi dégg <laughs> ba ko xoolal lii rek yaa ngi dégg ala kulli xaal mbokk jullit li taxoon ñuy wax rek mooy suñu boroom yàlla amul benn bakkaar bu doomu aadama def ci sukkuraatul lu dul yàlla bal ko demal nga makkatul mukarrama wallahi nga jóor fa téeméeri bomb moo xañe kaaba ga ak lépp bu sa tuub sellee yàlla bal la mi ngi noonu kon seytaane na am ci ñun gañe benn gee benn bataille ca bañ a gañe guerre mooy la ughwiyanna ajmain suñu borom wax na ci xadiisul qudsi ne tànk ñi ngi may jéggalu danaa leen jéggal mi ngi noonu borom bi nag subhanahu wa taala nee na seytaane teg na ca ne xanaa lu dul jaam yi nga tànn ca loolu wax nañ leen ko waxaat ko c'est un sur mille mi ngi noonu un sur mille borom boobu subhanahu wa taala ne ko demal lii dëgg may dëgg laay wax sawaraangee defar naa ko ba mu pare yow yaag ñi la topp ci ñoom ñëpp danaa leen fa tàbbal te ñi topp seytaane mooy ñu topp aw doxalinam yàlla da koo digal mu bañ yàlla mu rëy rëylu iñaan képp koo xam ne yaa ngi bañ ndigalu yàlla képp koo xam ne yaa ngi rëy yaa ngi iñaan sawara mooy sa wàccuwaay donte ne boroom xam-xam yi daan ca boole ci ne bokk na liy wane ne ki bàyyi jullis yéeféer la mooy iblis benn sujjóot la ko yàlla santoon mu bañ suñu borom ne istakbara wa kaana minal kaafiriin looloo tax ki jàpp ni moom julli waru ko mu bàyyi julli ku mel ni moom yéeféer la borom boobu nag subhanahu wa taala ni yow yonent bi neel waa makka ak kuy dégg ba ilaa yumi diin képp kuy wax say waxit ba ilaa yumi diin na leeral ci ne waaraate gi laaju ci benn pay mbokk waaraate bam mu daan jëriñ ni ñi laaju ñu ci benn pay waaye bañ demee mbir bi daal di koy soppi ak nguur xam ni léegi ki ñuy yaakaar alal du ñu am indi jox ko tool yi ñooy bay lépp ñooy bay mbokk it lan moo ci mujj indi mooy waaraatekat ya dalal seen xel ba amuñu leen lu ñuy am ñu lu ñu ragal waaye mbokk ab waaraatekat li ko war lii la yàlla wax lii la yonent yàlla wax ku jaarul fi yàlla jaar safara nga jëm ki jaar fi yàlla jaar àjjana nga jëm man nag yeneen yonent yàlla du ma nekk minal mu mukallifin du ma waxal yàlla lu mu waxul برب مونكو ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين اور بوما يونتي بي واخالون لوماكو واخلوول دانا كو جاب جابين بو دغر دغ مبوغول كو با دغ بو مو واي لوليت مي وولي ني مبوكو جوليت كينين كودول يونتي يالا اب سيرين لاني لاي توديم اك لون لي مونا تودي بول بوك مينال متكلفين كين سوسلوول تي دين يالا جي دارا xoolal jàngal diine jëfe diine woote ci diine sosloo wuñ la dara mi ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala ni lii nekkul lu dul fàttali ñel mboole mi mindaafar te mbokku alxuraan mi ngi noonu téere yu jëkk yàlla da ko doon wàcce ci ay xeet amma alxuraan yàlla da ko wàcce lil alamin su ñeneen ci yàlla yàlla yónni ko ila kaafatan linnas muy téere bi valable ba ila yawmi din di sax ba ila yawmi din suñu borom nag ni xabaar yi ci nekk xalse ngeen koo xam balaa yàgg te mbokk bépp yéeféer bu weddi alxuraan balaa yàgg day dikkal ko bis bu ko dee dikkalee mu xam ne li alxuraan doon wax yéppay dëgg loolee mbokk mi ngi noonu ñu ngi sant suñu boroom yàlla subhanahu wa taala ñun ñi ko gëm dëggal ko avant dee dañuy dëkkal yal na yàlla saxal ngëm googee ba dee fekk ñu ak moom kon loolu mbokk moo nekkoon suratu Saad di saar boo xamee nii mi ngi ñuy jox ay misaal yu rëy ci ay yonente yàlla daawuda ak suleymaan ak ayuba alayhi wax ñu ay xabaar it yu bëri say-say bu bon bi di cheytaani ak taxawaayu malaaka ya mi ngi noonu lépp lu ci yàlla digle yàlla ñu yàlla wërsëgal ñu jëfe ko kon Cheikh Ousmane naam